asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gën ci chaîne bi ñu ngi lay ñaan nga abonné te activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ci ñu koy njëkk a gis way leen di like way leen di commenter également te di partager vidéo yi c'est très important gars yi ñëw ci Iboussi, l'ancien international sénégalais IV bokkoon ci génération Moussa Wagué Mamadou Loum Ndiaye donc nekkoon gardien boo xamante ne mën li mu def assez talentueux ñëpp amoon ci moom yaakaar donc ñu gis ne Iboussi dafa réer carrément carrément donc nag fan la nekk loolu nag il def ci ay explication donc loolu lañ fas yéene wax ko donc euh, mais laataa ñuy ñëw ci yaatal gi page publicitaire te ñëwaat. da nga am jafe-jafe ci sa wàllu dund rab daf laa sonal cat jàpp la loo yaakaar mu tas sa wërsëg dafa tëju sa loxo bënn loo yor du taxaw nga bëgg borom kër wala soxna mu jafe la lool sa bopp jaxasoo sa ëllëg jaaxal la lool loolu yëpp bu la dalee solution bi mooy dawal seeti sëriñ Mohamed jaxate asrar di borom xam-xam bu mag bu yàlla may ci listixaar bu leer ak ñaan ci wàllu lasraar yow mi bëgg a tukki bitim réew fii visa jafe la lool wala nga tukki bëgg ay kayit ngir ñibbisi ci réew mi mu jafe la lool dawal seeti sëriñ Mohamed Diakhaté lasraar amu nangoo ba ñu ànd bëggante bëggante bu jéggi dayoo ak xaar bu leer wax la say mbir ba nga xam ne kii gis na la loolu ñëpp manqué woon nañ ne Serigne Mohamed Diakhaté amu ci morom ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro téléphone bi 77 334 83 80 wala 78 201 82 44 ak Serigne Mohamed Diakhaté Asrar aajo yëppay faj. donc ko gars yi ni ma leen ko waxee Ibou Sy l'ancien international sénégalais U20 donc moom jënd na ci silence bi mu nekkoon depuis. ay ay ay ay ati at at nga xamante ne gars yi ñi wax fan la Ibou Sy nekkoon et tout ça lii dañ koo soxloon mu jéem a expliquer donc wax na lu tax tey jii carrière am demee nii donc carrière am sooxee aujourd'hui donc loolu nag la ñuy ñëw euh, wax leen ko donc moom Ibou Sy jël na carrière am étape par étape expliquer ko expliquer ko lu tax tey jii mu nekk fii ñu koy woowee un talent gasi un talent oublié donc aujourd'hui loolu la ñu loolu la Ibou Sy doon leeral mu ne euh, donc tey jii certes foofee ca Marseille la démarrer euh, carrière en pro donc à 16 ans et demi Fof que nous na na ci qui en Ligue 1 française donc mon nek euh, jamono yo xamantene vraiment fierté le won ci mais fof nous dund fa beaucoup de loolu la Ibou si wax nee na foofu dund fa injustice boo xamante ne aujourd'hui eh, mooy loolu te Marseille ba mu fa nekkee c'était difficile man Mandanda nekk fa yaakaar naa quatrième gardien loolu ou troisième gardien mu nekkoon loo xamante ne situation bu compliqué la woon nee na foofu noonu eh, injustice ba mu fa dund donc looloo waral mu bëggoon faa jugee donc ci noonu nag ci la quitté Marseille bi mu jugee Marseille dem fële eh, ca Lorient nee na bi mu demee Lorient mu nekkoon jamono yoo xamante ne neexoon na parce que Lorient commencé woon na fa trouver temps de jeu di adapté adapté wu dafa def ay prestations yu am solo ba jëloon fa sax euh, coupe CFA muy quatrième division française euh, bi mu fa defee loolu nag après euh, waa Lorient bëggoon ko prolonger le contrat et que foofu noonu nag la yëf yëpp yàqoo mën nañu wax difficulté yooyu yëpp fii la commencé donc mu commencé ensemble dugg ci yëf yi ne ko prolonger sa contrat parce que ba prolonger ce contrat yeneen club yi day ñëw bëgg la te si biir contrat bi pour ñu jënd la ci day xaw a donc looloo tax Ibou prolongé wul contrat am Lorient ci nak euh ci la yef yi commencé commencé jafe ci mom parce que nee na du jour au lendemain ci la ko agent am bàyyi moo koy woo mënu koo jot depuis 2016 nee ba léegi ni amul agent nee club yi mu am yëpp yi mu dem yëpp mom moo doon demal bopam donc nee c'était difficile pour mu trouver club bo xamantene club bu bax la parce que amul won agent bu koy defal lol donc kon ñu xamné tay ji Euh, Ibou Sy carrière am fu mu nekk nii mën nañoo wax loolu moom moo ko waral éco lu ñu gis dafa am lu ko waral donc talent dëgg la mais am na yoo xamante ne tey boo ko manqué ñu football rek euh, yu bari daf lay yàqal surtout liggéey bi nga war a liggéey au delà de talent bi ak engins yi nga war a xam sa entourage donc ñooñu yëpp ñoom ñoo lay. taxaw ba sa carrière mën a baax mais loolu lépp bu ci amul donc agent yi tamit des fois dañ lay yàqal sa carrière et voilà quoi Ibou Sy loolu lay expliqué ba léegi nag teewul ne na gëm na ne dana ñëwaat ci meilleur niveau am dina ñëw ñëwaat ci haut niveau ci monde haut niveau bi donc 27 ans la am à 27 ans en tant que gardien bi peut-être à l'avenir ñu gisaat ko ci ci ci pelouse Ligue 1 yi ou Prime League ou Liga donc euh, loolu lañ koy ñaanal li leen di andi loolu like wéer leen commenté jaa ngeen jëf